asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne waxtu wu jot yéen a ñuy topp fii ci jumaa ju mag ji nga xamante ni bi moo nekk ci Touba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wu ci weeru wolof ñu nekk nag tey jii ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kori ci dëppoo ak li nga xam ne moo di bisub gaawu euh, ci atum 2023 ginnaaw boo xamante ne bii julli nañ timis ba noppi sëriñ Abdou Diop imam ni mu ko baaxoo def def na ko ni mooy yëgle ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi neenee nañu maasa séntu weer wi te lu ci xam lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko ñu defee loolu ba noppi danañ jokkoo ak suñu bokk yi nga xam ne ñooñu teewal ci yeneen régions yi tey ànd ak ñun ci liggéey bi ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous ak ku mel ne sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides yi waaye ku mel ne itam nag imam Ndiaye mi nga xam ne moo dox suñu diggante ak commission ba nekk Dakar ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci région yi danañ ko ànd ak ñun su ko defee nag lépp loo xam ne séentu nañ ko ba waxtu wi jot danañ jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ñu mën koo jottale en ci seen site bii di euh, surtout Touba Mosquée waaye ànd ko itam nag ak seen euh, télévision Lamfal TV ak rajo Lamfal FM ak yeneen rajo yi nga xam ne ñu ngi ñëw baaxoo diñ ko jàppale ci waxtu wu jot kon damay bàyyi ak kaddu gi Serigne Abdou Diop imam xabaar bi nga xam ne wala ndigal li nga xam ne bàyyikoo na ci kër Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha mu mën ñu koo jottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko sëriñ Serigne Fallou Garas waxee rek na leen baaxoo def def nañ ko mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bu yéen a dikk ci rajo bi rajo jumaa ji yéen fi ne sëriñ bi ne nee nañu séntu ci weer bi te la cuwaay xam nga ñëwee ko bi ñu ko defee ba noppi bi ñu toogee ci so bi ñu toogee ci sow di di séntu ak di xibaar yi ci gox yi yàlla dogal na mbooloo mu bari ci nun yi doon séentu gis nañ ko ba am na béréb yu bari yu ko gisit boo xam ne eh, Daaru mus ci la bokk sëñ Bachir Musti eh, eh, sëñ Abdou Khoudous mi téléphoné ne am nañ ko foofu feeñ na foofa Daaru am na ci am na ci ñoo xam ne it sëñ sëñ Fallou Gass mi dana leen dana leen leeral ne ñoom it gis nañ ko kon daal ñoo xam ne weer wi feeñ na suba ci dibéer ji mooy benn fanu digg wi diggu Tabaski suba ci suba ci dibéer jaan nañ xam ne mooy benn fanu digg euh, bi ñu gisee mën noonu nag nu gisee weer wi da lanay def mooy jokkoo kër kër sëriñ ba Cheikh Mouhamadul taxa bu ko defee mu yëg ko daa daa di daa di ci joxe ndigal loolu la def ba mu joxe ndigal it moo tax nu da dikk bi ci rajo bi di koy di yëgle ne weer wi feeñ na kon ñu xam ne weer wi feeñ na suba la benn fan dibéer kon ñu xam ko lépp ñu ngi sant mbooloo mépp nag ni ko sëñ Fallou Gallas waxee rek ñi ñi ci jàpp ñëpp kon moom dana ko gën a mën a leeral sax leeral ñi nga xam ne ma jokkoon nañu jokkoon nañ fii wane ne gis nañ ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Abdou euh, ginnaaw bu ñu ko àndee ak waa daayira muxaddamatul xidma bi nga xamante ne bii xam nañ seen taxawaay ci lépp lu ne ci jumaa ji ak li ko wër ànd ko ak seen télévision bi di Lamfal TV euh, gisal nañ sunu bopp fii ci sow bi jàkkaarloo nañu ak euh, weer wi waaye sëriñ Bassirou Mbacke mu sëñ Abdou Khoudous itam waa këram teg nañ ci bët waaye itam Serigne Modou Diakhaté nekk ca Risatol bokk ci représentant xalif général des mourides yi jokkoon na ak Serigne Modou Mbacké si wax na gis nañ weer wi Fuuta it ña fa nekk wax nañ ne kon gis nañ weer wi kon li gën a wér mooy benn panu dibéer lay doon incha allahu rabbi di suba mooy benn fan ci weeru diggu tabaski kon ñu xam rek ne màggalu Daaru Salaam sëñ ji yaakaar naa ne fukki fan ak juróom-ñeent lay doon ci digg bi war doon alxemes le 8 juin incha allahu rabbi moom itam ñu maase ko xam muy bis bi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéey li woon boromam ba ñibbi si ñëw Daaru Salaam eh, rakkam ju tedd ja doon ko ganale foofa